tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal nañu Sénégal am na ñeenti nit ñoo xamante ni amewaat nañ jàngoroy coronavirus ni ki démb Abdoulaye Diouf Sarr moo ko daal di xamle journal bi di réew mi quotidien nee na kenn ki nag moodu moodu bi nga xamante ni daal moo ko dugal Touba moom moo ko ko daal di wàll ñett ñi nag yéenekaay gi du Source A nee na ay moodu moodu lañ yoo xam ne maanaam ñu jóge bitim réew dugal ko ci réew mi groupe promo consulting bi mu ñuy xamal naan ñu jamono ji nag mën nañoo wax ne Sénégal ma ngi ci fanweer ak benn ci ay nit ñoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus ba tey ci biir yéene kaay gi mu ñu xamal naan ñu ñoom Guy Marius Sagna Y'en a marre collectif ñoo lànk ñoom ñëpp jamono ci nag ñoo ngi booto ci ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr ngir nag jàppale ko ngir nag mu daal di mën a réussir xeex bi nga xamante ni Sénégal yi yëpp daat nañu koy sumb journal bi de mu ñu xamal naan ñu en tout cas li am ba des mooy ci lu pétrole maanaam dina xañ Afrique lu toll si juróom fukk ak ñeent ci ay junni milliards yéen a gi di grand place mu ñu xamal lan ñu en tout cas li nga xam ne moo am des ñu bari ñoo xamante ni daal di ay touristes ñoo ngi dugg fi nga xamante ni mooy Cap Skirring journal bi na est-ce que sax nag ñi nga xamante ni maanaam ñooy dugal jàngoroy coronavirus ci réewum Sénégal est-ce que nag jaareewuñ ci Cap Skirring loole nag journal bi xëy di laaj ndax nag bërëb boobee lu toll si ñetti téeméer maanaam ci ay touristes ay bés bu nekk danañu fa daal di dugg maire bu Jembereng moom nag la muy sàkku maanaam aéroport ba ñu daal di koy tëj lu jëm nag ci xeex jàngoroy coronavirus ginnaaw bi nga xamante ni nag xalif général mu mourides daat nay génne lu toll ci deux cent millions yéen kaay gii du mu xëy di wax nag ne Sénégal neexul ba neexul waaye dafa bëri ay milliardaires te nag milliardaires yi nga xam ne yéen nekk ci réew mi maanaam génn leen yeewu leen ndax réewum Sénégal milliardaires yi war nañoo mën a dugal seen loxo ci seen poos yi maanaam nag participer si xeex bi yéen a kaay gii moo xëy di wax mu ñu xamal lan Serigne Mbuub CCBM kooku milliardaire la Abdourahmane seen Senbus kooku milliardaire la Amadou Bakare Four automobile kooku tamit milliardaire la Cheikh Amar TSE génnal milliardaire la Yirim Sow kooku tamit milliardaire la Bara Talla ba tey journal bi ne Baba Diaw bu Itok moom tim na génn milliardaire la Ali Gueye bu Ménage distribution milliardaire la journal bi di source a pare di xëy di wax nag ne lu jëm ci patronat bu Sénégal ñooñu tamit bëri nañu ay milliardaire war nañoo génn ku si mel ak Mbagnick Diop mi nga xam ne mooy président bu MEDES ak Mansour Kama ak ki nga xam ne mooy Babacar Ngom Sedima ñii ñëpp ay milliardaires lañ réveillez-vous yéen a kaay gii nag di source amoo xëy bëgg leen a yee ngir nag ngeen jàpp ci xeex bi yéen a kaay gii di réew mi ko di jee ak la témoye mu ñu xamal laa ñu nag waa église bi ñoom nag daat nañuy dakkal lépp laas yéen a kaay mu ñu xamal laa ñu messe publique yi sax maanaam église sénégalaise bi daat na kay dakkal enquête yéen kaay mu ñu xamal laa ñu am na nag ab sénégalais boo xamante ni daal njortu nañ ne am na jàngoroy coronavirus ji jamono jamono ji nag ma nga ñu rënk ca diwaanu France libération yéen a kaay mu ñu xamal ñu jàngoroy coronavirus ji ma ngi lëmbaaje àdduna bi ndax nag daan nañuy xayma ne lu toll si juróom ñaar ci ay junni nit faatu nañu ci Italie nag jamono ji limba ma yokk ndax lu toll si ñaari junni yu fegg juróomi téeméer ci ay nit ñàkk nañ seen bakkana ci Italie bu dee Espagne lu toll si juróomi téeméer ci ay nit bu dee France lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróoma laas yéen a kaay mu ñu xamal ñu ci réewum Sénégal nag kenn ku nekk daal ma ngi góorgóorlu ngir na xeex jàngoroy coronavirus ji ci transport en commun foofu daal fi la mbir mi tagga témbee maanaam lijjantee ko fa maanaam moo jafe loola yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal la ñu nag jamono ci Touba moo ëppale jàngoroy coronavirus ci réewum Sénégal moo tax armée sénégalaise bi daat nay daw nag ngir daat leen di wàllu ñu daal di fay def ab hôpital mobile yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal la ñu destination Sénégal dañu ko doon jaay nag waaye jamono ci lépp Covid 19 bi daat na koy yàq laas yéen kaay mu ñu xamal la ñu nag ministre bi ñu dénk wàllum nag commerce moom daat nay dalal xel yi waaye nag ci Sénégal li nga xam ne moo fi nekk ci ab ceeb li fi nekk ci ab ceeb ci réew mi maanaam ñaari weer ak genn wàll rek bu ñu ko dundee mu daal jeex jeexa waaye nag ministre bi daal ma ngi dànkaafu ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ngir nag ñu bañ a yokk li nga xam ne maanaam mooy njëg yi stade yéen kaay mu ñu xamal lan ñu coronavirus bi daan nay dakkal li nga xamante ni mooy euro 2020 yóbbu nañ ko ba 2021 joueur bii di Blaise Matuidi nekk di Juventus moom dafa amee jàngoroy coronavirus yéen kaay gii di sunu làmm ñu xëy fekk fa Boy Kayra moom nag daan nay wax ne Gaston Mbengue daal maanaam li nga xamante ni moo ko waroon mu wax Alioune Sarr mu daal di jóge ci bopp CNG Alioune Sarr moom nag njiitul CNG xëy ci yéen a kaay gi sunu làmb nee na nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf di ruubee ñooñee ñëpp danañu ko daal di lijjanti ak ñooma